def débat de fond. Mhm. mais jàpp naa ne très sincèrement c'est vilain dafa ñaaw. Mhm. lu Macky Sall mën a def. renoncer à saa candidature ñu ak la même dama ne ne gënul important li ñu def Ousmane Sonko. parce que doomu aadama te ku mu nekkoon ci ñun. Mhm. su la daloon du la neex mu dal say waajur. kon nag dañ ci war a wax. état da ci war a wax. droit loi wax ci. kilifa diine wax ci askanu Sénégal wax ci. du doon un combat de corps à corps wala un combat de rue. combat de principe mooy que ne Ousmane Sonko amuñu droit. li mu def ci réew mi ak ñi ko topp ci Sénégal ñu jëm ci ay élections yoo xamante ne Ousmane Sonko bokk loolu mooy dëgg nañu may sénégalais ñu am le droit de choisir leur candidat bi nga xamante ne du ay question de parrainage du ay question géopolitique moo tax ñu exclure ko mm-hmm. parce que dañu war dafa war dafa war primer au-dessus de tout mooy que ne Ousmane Sonko la quasi totalité presque plus de cent dix pour cent de la population sénégalaise d' accord nañ ne Ousmane Sonko dafa war a nekk candidat loolu nag dafa war a compter ci décision bi a jël au finish. mais tey est ce que Ousmane Sonko que euh, ni nga ko waxee fi nga ne foofu la toll si askan wi mhm. euh, dem nga ba wax ni ñu xalaat élection yu mu bokkul est ce que mhm. tey moom waroon na waroon na mën a doxalee ni mu doxalee est ce que warul xoolaat warul woon xoolaat bu baax fi muy teg tànkam ba yu mel nii du du ko dal ba ba ba muy nekk ci situation yu mel nii. est-ce que amul erreur yu mu def ci biir ni mu ni mu doxalee ba tax mbir yi demee nii ci côté non man Ousmane Sonko erreur yu mu def ci life am di ci ci parcours politique am dafa dafa énorme man nit mhm. ci say kaddu kese laa lay jàppee ah Ousmane Sonko ñun bañ koy jàpp ci kaddoom lañ ko jàppee bañ koy bàyyi aussi ci ay kaddoom lañ koy bàyyi mhm. moom moo ñu toog mun a ñëw moom moo kon tey mu ne je n'ai rien à dire mhm. ndaw bi dañ ko soxla pour l'avenir de ton pays war leen nangu ay politiciens di du ma collaborer avec les anciens du système. Mhm. compte ñu lu patriotisme lu ne mu wax ñu. Mhm. su demee nag ba tey ay kàddoom mu warook ay kàddoom def leneen ñun dañ koy dañ koy dañ suñ ko rappeler mu dëgër bopp ñu dem jël parce ñun loolu ñuy dund patriotisme bi la ñuy dund. Mhm. ñun jàpp nañu ne Ousmane Sonko a fait beaucoup d'erreurs parcours politique il a fait beaucoup d'erreurs énormément d'erreurs le cas avec Adji kenn du ko ko baal. duñ ci wax débat de fond de ci ki nga xamante ne yow du la may dara nga koy jox arme bi lay rey su ko téye da rendi si loo mënee moo tax état du Sénégal avec tout le parcours politique de Ousmane Sonko du ci discours du ci gérer du ci liggéeyam du fenn mënuñu koo jaar fenn fu ne wër nga ko nga joxoon ko ay fonction étatique poste stratégique nga jox ko ko poste boo xamante ne képp ku ko joxoon fii sa papa wala sa waajur te ji nga nekk dans dans euh, ci ci ay nuages de fortune. Hmm. mais nag li nga xamante ne tey jii ñu bëri prévenir woon nañ la ci te ñoom ñoo ko wax ah. prévenir nañ ko fa ngay dem gars yi ñu lay fexal loo fa wuti. toogal sa kër. mais c'est pas pour rien que nit ñi di nga politique du affaire yu caaxaan ay jeu de yooyu de il faut être digne exemplaire xam fi nga man mii di wax ak yow man xam naa foo xamante ni ma fa teg sama tànk. Mm. pour rien au monde. te aw soxla ma benn poste politique. Mm. mais sama dignité sama honneur ak sama image dama koy préserver dama koy dama koy sàmm. waxuma la sax dem fa mais taxaw fa sax en image ñu ma fay gis du ma fa du ma fa taxaw mais affaire bi affaire affaire Ousmane Sonko Adji Sarr affaire caaxaan la quoi en fait mhm. liñ ciy wax yépp affaire caaxaan la ñun loolu lañ gëm du affaire caaxaan la de waru fa dem waru fa dem loolu mooy dëgg keneen ku la wax leneen lu dul loolu waxu la lu am mhm. Ousmane Sonko n'avait pas à être présent dans ces lieux de débauche te loolu président de la président de la République wax la seen de débauche sax ñoo xamante sax waruñoo taxaw en image ngay photo ak nag sum ndox tuuroo ak mbàq moo fa des mm. sénégalais la su nekkoon ne kenn ku nekk dañ lay topp à une ou deux heures di nga def kon mm. kenn du jiite réewu Sénégal Macky a même raconté mm. kon tey jii Ousmane Sonko nit kese la mm-hmm. il fait des erreurs il a fait des erreurs ces erreurs là jàpp nañ ne loolu mënut a entaché lenn ci réputation politique am mënut a lenn ci vie sociale parce que à travers ces terewul askanu Sénégal nañ ñoom la moom la ñu àndal baal nañu ko. Mm-hmm. askan bi ñoo ko baal ah. ah comme que askan bi baal nañ ko nag kon képp koo xamante ne téye nga. kuréel euh, euh, bépp loi et règlement ci ci ci Sénégal war ngaa war a mën a clément à travers ce dossier que nga bàyyi Sénégalais yi nag ñu choisir pour une première fois librement ki nga xamante moo leen war a jiite mmh. voilà mi ngi noonu kon defe naa loolu ñu euh, li ñu may signaler nga xam mmh. <laughs> na leen bàyyi mmh. ñu tànnal seen bopp ki nga xamante ne moom la bëgg vraiment mu jiite leen donc euh, maa ngi euh, rafetlu sa présence encore une fois ci euh, sama plateau mhm. di la vraiment remercier bu baax a baax bu am commencement mais bu amul fin yow moom ci kër nga bokk mi <laughs> ngi noonu amoon nañu vraiment kontaante jàkkaarloo ak yow waxtaan ak yow waxtaan bu am solo bi dégtal ko ñi nga xam ne ñooy suñuy internet di remercier aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon vraiment ci commentaire yi di ñu dooleel di ñu suivre tout moment euh, boo xamee ne rek ñu ngi nekk en direct fii ci euh, Télé Sénégal TV ñu leen di remercier euh, di remercier comme ni ma koy waxee ñiy seetaan un peu partout dans le monde mais xam naa laata may tëj rek damay bàyyi sama invité moom aussi mu daal di tàggatoo par Samba amoon nañu vraiment te ak kontaan te jàkkaarloo ak yow. bon man la ñu gën a kontaan ah. mm-hmm. parce que joxe antenne moom c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. et puis di leen jaajëfal di ñaanal. Mm-hmm. yàlla romb fi mu fi mu li ngeen mën ren yàlla ngeen mën lu ko raw fii ak déwén. Mm-hmm. vous faites un excellent un excellent boulot. Mm-hmm. fépp fu ñu fi ñu fi jaaree fu ñu defee publication bi ñëpp koy apprécier maa leen di jaajëfal. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mhm. merci beaucoup Pape Samba comme ni ma ko waxee amoon nañu mbégte ak kontante jàkkaarloog Pape Samba si plateau bi waaye it jàkkaarloog yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy euh, fidèle internet di ñu suivre saa su nekk ci Télé Sénégal TV di leen remercier bu baax a baax di remercier ñi ñuy suivre ñëpp di remercier techniciens yi nga xam ne euh, ñoom laay àndal saa su nekk euh, ci plateau bi leen wax rek suba lay doon